asalaamualeykum asalaamualeykum mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag fas yéene jàkkaarloo seen émission Kouthia tey nag parti démocratique sénégalais dafa yëngu ba yëngal yëngal li waroo yëngu te loolu yëngu na ba pare ci biir réew mi Ablaye Wade dàq na ki nga xam ne mooy Farba Senghor ak Pape Samba Mboup ne ay ca ca biti bëggu tuma leen gis ci biir PD Farba Senghor yàkku mel na xemee Karim Wade nee na Karim dafa bon dafa soxor xamul dara xel bi dafa nëx loolu tey dina nekk loo xam ne spécial Karim Wade Ablaye Wade Farba Sey Karim Wade tamit jël ay tontu yu forox toll teg ko ci kaw ki nga xam ne mooy Farba Senghor nee na Farba Senghor amul niveau Farba Senghor moom ci boppam wérul loolu nag ay wax la yoo ne far ba dana dara ànd ak Pape Samba Boub daa dee tontu Ablaye Wade bi nga xam ne nee nañu ñoom jàpp nañu léegi dafa naax mbokk yi tey loolu mooy doon suñu spécial parti démocratique sénégalais Omar Dieng bul yoxosu boo yoxosoo du baax maa ngi lay xa bàyyi xel ci li xam ne moom laay def ndax am na fu ñu war a jaar ki nekk ci réalisation bi xam ngeen ne moom mooy Papa Samba feggoog toog bi nga xam ne moo yor son dama ne off benn jëmm la ñaari caméra mooy serré mooy centré mooy figuré mooy propre mooy def lépp ci biir studio dama ne mbay dikkal dikkal come on come on mbay come on come on come on come on mbay come on come on mbay on come on come on come on come on come on kaay kaay kaay mbay kaay dikkal kaay dikkal dikkal yow dikkal yow dikkal yow dikkal yow dikkal yow dikkal waaw waaw eh ah, mbay day dem très bien mbay te de récupéré nga. Ah, ah. kenn dootu la fecceloo de. Ah. <laughs> kenn dootu la fecceloo. démb da nga sonn. parce que da nga dugg ñu fecc loola ba nga tar munoo wax. di appat oui bien. très bien. yoko bëri de Assane. aywa. sexel sexel. yaa ngi xeeñ lu neex ci mbuus bi. loolu laa bëgg nga génnal ma. yaa ngi xeeñ lu neex loo xam ne yaa ngi ko yor ci mbuus bi. oui parfum <laughs> parfum de classe. bii mooy parfum de samande de bayra parfum de énergie parfum de de classe. parfum de New York de France pardon de tout. mbay mbay. oui mbay parfum bii moo tudd black. black si bopp koy defar. oui parfum bu ñuul la spécialement pour góor. bu neexee jigéen tamit mën na ko tuuroo mais góor ko tax a jóg black la tudd ni turam di wuyoo dafa ñuul kukk lii mooy parfum black si sivop moo koy distribuer mbay am na beneen boo yor mbay yo xanaa ne ko fi jox ma deuxième parfum bi bi nga xam ne góor ak jigéen ñoom ñaar ñoo ko bokk homme et femme men et women parfum des vieillards. des vieillards. et des de. Des... tout le monde. tout le monde très bien. Mbaye. bii bii ak jigéen ñoo koy utiliser. merci. bii moo tudd spicy spicy bii góor ak jigéen mën nañ ko ut ndax parfum la boo xam ne xeetu góor a ngi ci xeetu jigéen gi fi Mbaye. Mbaye. Eh booy yow doo concentré wu ci li ngay def. parfum bii góor ak jigéen ñoo koy utiliser mbay am na bu ci tegu am na bu xoolal si ngay def waa kii wér na parfum li rouge parfum de rouge mbay xoolal ni nga ko rangelee ban moo ci tegu oui le rouge ban moo ci tegu bii et eh, le vert le vert <laughs> le vert énergie le verbe. Mbaye. <laughs> oui oui d'accord d'accord man après naa wax ak yow quoi. gis nga parfum bi soo yeewoo sa yaram nagam. boo ci laalee tuuti rek da nga nekk en forme xoolal en forme. kon man ni may nekkee en forme nii. Eh. bii nag spécialement pour góor la. bii góor bii góor ak jigéen bii góor. boo yewoo tayal boo ko tuuroo da ngay ànd ak énergie. Sivop moo koy defar parfum la boo xam ne fii ci Sénégal la fekk baax mbay. prochain parfum bi anamu. eh eh yow. booy yow <laughs> pare yow dinaa wax sénégalais yi la ngay def léegi. Ah. xaaral <laughs> bii moo tudd glamour. Eh, glamour. glamour. l'amour est eh, belle. Eh, waxuma la parfum l'amour. amal yar parfum bi glamour la tudd. ah glamour. glamour nag jigéen ñi ñoo koy xoolal laalal jigéen ñi ñoo koy utiliser. ah xet gu neex gi nekk ci man mënul am feneen. marque style la si fa moom concentré wul fii. parce que ñii dañu bëgg ku xool seen plateforme. oui oui oui yamal sa place. de moom. glamour. Eh, eh, eh, de moom glamour. léegi Mbaye. oui bi xam nga ko la la allure génnal ma émission bi ma ma ñëw Mbaye Mbaye man après naa xam sénégalais yi la laa la expliqué. mais même tuuti rek bu góor bi énergie la. bu jigéen bi mooy allure. ni muy ni muy joxee góor. énergie bi allure bi noonu lay joxee cawarte jigéen. Mbaye benn parfum moo ci des nan la tudd. Samba Thiam li allure li réalisateur par Samba Thiam. Mbaye kaay concentré wu fii troisième parfum bi nu bii affaire bi Jama. voilà. Ibi eh béykat jamaanu ah jamali mbay jamaa bi nii. jamali mbay ah. mbay ah. jamaa bi. parfum jigéen la. allure bii parfum jigéen la boo ko tuuroo xetu jamaa ak maanaam jamaa ni muy fësalee doomu aadama. noonu ngay fësale jotaay allure. Ah, jamaa énergie glamour spéci <laughs> ak black. mbay <laughs> mbay ñi dañoo fay seen xaalis. concentré wul oui oui parce que. si bopp moo koy non déglu ma il a beaucoup de l'argent il est tomate. wala tomate. soxna si. tomate bi soxna si la tudd tuddul tomate soxna si. soxna si tomate la dañ koo transfert mu doon tomate loqati. benn fukki dërëm. ceebu jën maafe domadaa yaasa bu xonk waaye tamit cere si bu xonk. soxna si fukki dërëm lay jar mbay mbay mbay ñëwal ci concentration bi. Eh, li li fukki fukki dërëm lay jar si marché bi. wax na wax naa ko ba pare. day togg ceeb day togg lépp léegi mu xam sa sax tuutu. mbay ah bii. Eh, ok ok. mbay. ma daa. mbay <laughs> eh, déglu ma. mu xam sa ak tomate bokkuñu yoon. bokkuñu boo ma waxee vermicelle. vermicelle wala nga ne spaghetti man la waaw. oui spaghetti. madaar bii. Ah. moo ñëw ak doole. am na liquide am na omo. omo bi mbay. bàyyi li ngay def ñëw ah. concentré wu fii. fuur fuur fii fuur. madaar bi am na liquide am. am na omom. am na nuuraa. boo amul madaar utal nuuraa nuuraa bu mag am na nuuraa bu ndaw am na ah, ah, madaar pëndëx am na madaar liquide am na mbokk yi li ci fii nga xam ne si bopp moo leen may seen émission Kouthia Show soxna si may leen Kouthia Show ah, madaar ak njabootam ànd ak nuuraa ak pëndëxu madaar ñoo leen may seen émission Kouthia Show beaucoup de personnes il dem mbay bateau mbay mbay bàyyi ñi ngay àndal. non déglu ma da ngay commencé tuxu la Baye. non Baye Ndiaye lay àndal ak Ndiogou. kon déglu ma ñoom Baye Ndiaye ñoom Baye Ndiaye du ñu tux cigarette ñu tux pon ci lu jëm noonu mbay dangay ngay tux yamba. déedéet non non sa bi dafa commencé. non non ngay naan sàngara mbay day naan sàngara. da ngay naan sàngara yow. yow da ngay da ngay naan sàngara da ngay da nga mandi dafa mandi day dox day mandi kii day tox dafa tox kii mandi kii dafa kii yi am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak Sivop ci xeetu parfum style benn bu nekk nag am na turam bu muy wuyoo soxna si tomate la boo xam ne nag wax dëgg yàlla amul leneen loo xam ne nag lu naturel madaar mooy ànd ak ñun suñu biir kër di setal di xeeñal waaye tamit di dégraissé ànd ak omo madaar moo tax mbokk yi ñoom ñoo la may seen émission Kouthia Show ñuy ziar sëñ Sidi Makhtar Mbacke xalif général kulu murid di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu Aziz Sy Al Amin ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu ko ci jal waaye tamit sëñ Mbaye chef religieux dëkk ci Louga di nuyu tamit Cerno Sama Sa mora bi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér Cerno Madani Muntaga Taal alaaji Cerno Bokar Alpha ba ca war a fondé Serigne Habib Gaye mu xadamu Serigne Mansour Sy Cerno Nourou Taal Sacré Cœur Cerno Abdourahmane Bari ca Bogol alaaji Cerno Hamdou Aw xalif Celaw alaaji Ousmane Ndiaye Waliyu Kamin ak soxnam Adja Mam Bousso Cissé alaaji Bassirou Bara Mbacké koy ñaanal fan bu di tamit di ñaanal sëñ Abo Mbacke di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram xalifu sëñ Fallou la moom ak raqaja sëñ Abdou Karim Mbacke nuyu nañ ko di nuyu Modou Fleur nekk ca kër ga waaye sëñ Abo Mbacke ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram suñu soppe la ñu ngi koy ñaanal jàmm baña am gàllankoor lépp loo xam ne mu ngi koy dox yàlla may ko jàmm waaye tamit di am mbégte contentement bu mag si suñu baay sëriñ Mama Sugu Waadaan nekk ca Waadaan Kébémer ak mboolem taalibeem boo xam ne yaa ngi wékku ci moom ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Cheikh Tidiane ay jaw euh, euh, nekk ca Yaraax yàlla may ko jàmm cardinal Théodore Adrien Sarr mi nga xam ne nag monseigneur Benjamin Ndiaye moo ko wuutu ci karam bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin ci barke Yesu Christa lépp luñ ci woor yàlla nangul leen ko mu ànd ak barke réew mi am jàmm ñuy nuyu tamit baax maître Fatima Fall huissier de justice responsable politique nekk ca Ndar yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ak mbooleem soppem nuyu nañ tamit suñu papa bopp Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Tivaouane di yeewoo ca Budi ak suñu yaay Adja Kiné si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum yal na ko yàlla xara ci àjjana yu gën a kawe yàlla yokk leeram foofu waaye tamit ñuy ñaan tamit yàlla may ñu jàmm ci réew mi di nuyu Maodo Sarr Oumou Sarr Cheikh Ahmed Tidiane Sarr Asi Sarr ñoom ñëpp ay doomu sëñ Mansour Sarr nañu gàmmu international bu ñànk idi ñu ciy nuyu Thierno Mamadou Adama Gaye ak Thierno Euh, xalif bu no Adama Gaye nekk ca ñànke idi ak soxna ak mboolem taalibeem ñu am mbégte contentement ñoom ñu ngay delloo njukkal Youssou Ndour ca la nga xam ne nag def na ko ci premier pas yi nga xam ne mooy gàmmu international bi nga xam ne war na am la 7 ak la 8 foofu ca ñànke idi nuyu nañ bu baax ki nga xam ne mooy Serigne Ibrahima Kunta ibnu Cheikh Mouhadamal Moustapha Kunta ak soxna Ajara soxna ajaratu soxna Biige Guèye ñu ngi koy nuyu waa Binaako Chérif dalee ko ca xalif général ba sama xarit la Chérif Atab Aydara xalif bu Binaako Chérif ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Mané nekk ca Binaako Chérif porte parole ba yàlla defal ko jàmm mbokk yi nag ñu ngi am mbégte ak contentement réew mi yëngu na démb ci guddi Farba Senghor dàq nañ ko ak Pape Samba Mboup ka ko dàq nag du kenn ku dul Ablaye Wade moo joxe ndigal taalibe yi daa dee ànd am nañu voté am nañu voté wul waaye ca Paris ca biir Versailles la Ablaye Wade yëkkatee ay kaddu yu ñaw Farba Senghor nag la mu yàq Karim Wade ko ko dégg da nga naan est-ce que Farba Senghor Karim Wade lay waxam déet Ablaye Wade nag dafa fanaanoo mer daal di koy yendu ñu seeti góor ga ca Versailles ndekete Ablaye Wade bu tàngee du sedd te bu seddee tamit kenn mënu ko tàngal lépp ci température bi góor ga ca biir Versailles ñu seeti ko. jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di gërëm dolli boobu ngeen di wax mëntul nekk ci présidentiel waaye mën na nekk ci législative yi ndox am na ñuy waxtaanee pour def ma tête de bu coalition bu opposition bi su ko yàlla dogalee incha war na mën a nekk Farba Senghor soo gisee ma dàq mook Pape Samba Mboup dañoo jël seen tànk wi def ko bargalu maabo jël seen làmmiñ bi mel na ku ci diw laalo mbëpp bu ànd ak singom buri tax bandal ñoom moomuñu parti bi léegi daal dañu jël parti bi bugg koo pàcc pàccal di koy dog ay morso mel ni kuy saraxe ci mburu ku ne di dagg yaa ngi dégg ay da dagg jàpp wàllam gune gi nekkoon ci man waaye damay damay fàttali c'est le jeune là il n'est plus dans le parti avec le waaye te nekkoon ministre de la jeunesse déedéet ki mu xaritam Mamadou Diagne Fada ut pàcc pàccalam ñoom ñëpp pàcc pàccal parti bi ba mu pàcce léegi Pape Samba Mboup nekkoon na sama directeur cabinet soo gisee ñu dem ba ci biir ma xëcc ko teg fa keneen wérul déedéet wérul Pape wérul sikke moom boobu di nuroog béyu daara jolof nga war a xam ne Samba wérul Samba bu duggoon ci géttu béy béy yi ko bàyyi mu génn parce que sikkim ba sikki mu béyu bayu àll la far ba nag naka jekk man maa tooñ te yax naa leen ko farba sengoor mësta wér man maa ngi jéggalu ci sénégalais yi le fait que moo defoon ko ministre sax mësta wér googu nag dama yaakaar ne su ma ko wonee ginnaaw dana sax toog xalaatal ba delloog sagom farba wérul ñoom ñaar ñu wër dëkk bi ku nekk di wax Karim di ko yàq lu mel na xere te ñoom Karim seen rax la ah Karim lu mu mus a soxla point e, mooy daw jëndi ko lépp Sénégalais xam nañ ko ñaata yoon la boot boot Karim di ko aayoo nen neel nen ne tuuti nappil sa baay ni bi Karim demee ba nekk njagamaar doomam yi buñ doon jàngi jardin ba moo leen di jëli buñ la defee nit nag tox la poste ministre nga jël sama doom def ko noonu bu par Samba waxee kii lee nga tulli fee kee talli fee ngeen mel ne ñaar ñoo xam ne eh bien yéen yéen parti bi parti bi deewuma ñi yaakaar ma dee yëpp billaay dinaa leen suul ku ko yéene dinaa la suul ah. léegi nag maa leen dàq ci biti moom ak Pape Samba mbubu yëpp ci biti parce que xam naa sen plan seen plan je connais je je sais fi ñu bëgg dem xam nañ ko ki ñu bëgg a xam nañ ko man xam naa fu ñu bëgg a jëm man soti dama fii laa nekk waaye dara ump ma ngeen baal ma sax ndax li ma waroon tàmmale waxu politique moo ma ba jaalewu ma li nga xam ne moo am suñu ginnaaw di seen Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ko ñaanal yàlla xare ko àjjana sama jaar-jaar ak moom ci waxtaanu politi loolu rek émission spéciale la te normalement journaliste yi waroon nañu bàyyeekoo Dakar ñoo laaj ma ma wax leen lu bëri loolu entre parenthèse damay jégalu waaye gis nga bés bu ma tegee sama tànk Dakar mm. bu keroogee ngeen xam ne Ablaye France lay màggatee waaye Dakar lay nekk xale bu góor <laughs> Farba Senghor kan la nekk nit man maa ko def nit qu'est-ce que ça veut dire te sama doom ji tulleeg malleg malleg tulle tulleeg malleg tulle malleg Pape Samba bu jaaree fee kee jaar Pape Samba Mboup c'est un enseignant un boo xam ne man maa ko jëlee bien avec tout ce qui s'est passé def ko directeur de cabinet def ko muy nit mais il se permet avec son barbe là qui ressemble ku lekk cere ak soo bañ koo fëgg loolu dafa dafa civilisé maa leen gën a kanosu man ba may kanosu kanosowuñu lu ñu jël benn mun naa koo jël ñaar man coccu laay def man du dara lu ma mën bu fekkee nit dafay jël dara man di man dama du dara ne cocc man man yooyu bu fekkee ne dafa am looy jël ba tàggaw sa sago man duma ko jël te damay tàggaw sama sago naturel maa ngi bàyyi ba kenn waxati dara Karim qu'est-ce que ça veut moo xam ne il se permet de dire tout ce man màggatuma ku ma yaakaar ne damay dee yaa ngi nax sa bopp mi sama loxo ba ma fiy jóge dama ko leen lu leer da ngeen di mën a ànd sama doom jiite mënu leen koy eh bien ku nar a déranger nga génn pour problème mu Khalifa Sall guerrier la Khalifa guerrier foofu mu nekk noonu jàmbaara fay dugg jaar naa fa et wax ne tout le peuple sénégalais rawatina la Médina bu Bamba nekkee ci kaso bi jàmmatul Khalifa warta jàmmat diggante Médina ak Rebeuss ak diggante Rebeuss ak Palais sorewul man fa may waxee xooma ndax dégg ngeen ah, ah, xalifa jege na pale bamba jege na pale kii day jaar corniche kii day bët ginnaaw fi nga xam ne mooy port de Dakar mbiiju jaaree ginnaaw na patax kee day jël corniche bi jaar Sorano jàkkaarloog pale kii jàkkaarloog pale kee wër ko ndombo bu ñu waxtaanee dugg pale waaw waaw ma ñëw ñoon yaakaar ne damay dee deewuguma di ku yaakaar ne damay dee deewuguma bamba xale la xalifa mag la bamba mooy ibbi xalifa jaaree ci ginnaaw dugg ndax boo jëlee mairie Dakar ca ginnaaw mooy port corniche port bi mooy dem ci ginnaaw Anse Bernard boo jugee pale di dem Medina foo nga jaar Sorano xale bi bu xàllee yoon mag ji wéeri jaare porte derrière te nag naa leen xamal ñaar ku yaakaar ne xale eh, mag laa war a mënatuma yëngal samay mbagg yaa ngi nax sa bopp tey laa gën a ànd ak kattan tey laa gën a ànd ak doole góor gi dolli ñu ma dolli ba mu waaw waaw lay dolli ñoo waaw waaw sa wax ji de bon ak sa jëm góor gi wàccoo nga ñu waaw góor gi yéex nañu ca jot waaw loxo bi waay ayca waay kaay leen kaay leen ñëw leen feelu ma ay waaw ñëw leen ñëw leen ñëw leen waaw waaw ay waay wura sa kii sa kii ay ay ay wura wura góor gi góor wura ayca. hey ñëwal. waaw. ayca ayca ayca. xale ma ñëw. hey hey hey. ah. ah. Hey!

ko gi dina neex li ñu dañ la gisu toon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal la ngi nii gi njëriñu meñ la boo xamoon Sénégal jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ci moy góor gi dalli la manul wax ju yàqu la mu ngi def lu ndaw li manul mag ñi man ta bàyyi góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dalli ñu dañ ko daan di nga naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat darfuur Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ak Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay bugg jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix ouvert waa ñi fii firndeel ko góor gi yéex cee jóg am nañu mbégte ak contentement bu baax euh, ci liggéey bu nga xam ne nag euh, décompté mu ngi koy def di Fatima Evans 5 4 3 nga xam ne mooy métier 5 4 3 plateau léegi nag mu ngi cee bëgg rax loo xam ne nag Pape Samba koy jàppale waaye lu mënut a sotti ba tey nag fa nga xam ne mooy 5 4 3 moom mooy métier am ci fii Télé Futur Média mbokk yi nag ñi am mbégte contentement bu baax ci sponsor yi nga xam ne ñoom lañu àndal di style ànd ak ci Sibop Allure Black Energy Jamon euh, Glamour spécial ak yi nga xam ne nag ay xeet la euh, tomate soxna si tomate doom la waaye fexe nañ ba mu nekk njamb te amul beneen loo xam ne da ko rax tout naturel madaar bi nga xam ne mooy aay seen biir kër te setal xeeñal ba pare di dégraissé am na omo am na liquide ñoom ñooy numéro un te roy du nuro pire ku ko weddi na nga ko essayé xam ne ñoo fi yàgg te ñoo fi mën ñoom ñooy numéro un au Sénégal et en Afrique mbokk yi nag euh, dañuy dem ci li nga xam ne mooy l'utile euh, et l'agréable di ziare waa Daïra Rahma grande conférence religieuse bi nga xam ne ñu ngi koy amal samedi 8 avril 2017 daayira boobu nag parrain d'honneur bi di Alaaji Massamba Mbeng entrepreneur présidente euh, et membre membres du Daayira Rahma ñoom ñëpp nag ñoom ñooy amal waxtaan bu am solo de conférence boo xam ne ma ngay am samedi le 8 avril 2017 à partir de 16h ca rue 15 angle 18 euh, ca kër. fa ajaratu aram jén yàlla ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe di ñaan tamit euh, saraxa bi yàgg ci loxo njabootam thème bi nag ñu ci waxtaanee lu am solo di causerie animée par suñu baay Serigne Pape Malick Sy responsable moral du daayira waxtaan ba nag dana ne am solo waaye ka koy woy rek jar naa déplacé wu duudu kenn mbay ñu am ndigal bi nag ci euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général de Tidiane bi ñuy def nag euh, carte bi boobu sëñ bi wax dëgg yàlla laaxagul waaye nag ci ndigalu euh, suñu baay Serigne Abdoul Aziz Al Amin moom ñu ñaan yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Serigne Mbaye Sy Mansour porte parole euh, Euh, taraxa tijaan yëpp ñoom dinañ fa ñoom ñoo ñoom ñoom ñooy doon euh, présidence d'honneur yi waaye tamit euh, Serigne Pape Malick si responsable moral du Daayira Rahma Serigne Maodo si Dabaax ak famille Serigne Moustapha si Jamil ñoom ñëpp famille Serigne Mansour si borom daara ji ñoom ñëpp saan wax dëgg yàlla carte yi bañ koy def nag ndeysaan boobu xalaatu loon sax ak ne Serigne si Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Almakhtoum ndeysaan bés boobu dana ñëw moo taxit nag ñu defal ko ci woo patronage am waaye ñu ngi ñaan yàlla xara ko ci àjjana yu gën a kawe waaye nag lépp nag soobee yàlla Euh, ci ndigalu Serigne Cheikh Abdoul euh, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin yal na yàlla may fan bu gën a wér gu yaram daayira Rahma daal at bu nekk ñu daal di koy tollanti ren yàlla na gën a yaatu waxtaan ba gën a xóot gàmmu Serigne Babacar Sy rebel taala an wala 15 lay am 2017 lycée Charles de Gaulle waaye nag dina am xadara juma bu rëy boo xam ne mooy jiitu euh, li nga xam ne mooy gàmmu gi ñu ciy woo ñëpp nag waaye suñu bàyyi alaaji Moustapha Ka section culturelle Koskas mu ngi ciy woo ñëpp ak Moustapha président El Hadji Fall fédération Saint-Louis et banlieue suñu bàyyi alaaji Bàcc Seck section Koskas ak Saint-Louis banlieue alaaji Doudou Diop Ndiakhère trésorier section Koskas banlieue ak suñu bàyyi alaaji Ousmane Konaté secrétaire général section Koskas et banlieue ñoom ñëpp nag ñu ngi leen jox dox daje boo xam ne nag incha allah dana am solo la 15 lay doon waaye sama xarit sama sëriñ ñu ngi koy nuyu di sëriñ Fallou Mbacke docteur vendredi le 31 lay dem ca nganale gu mag boo xam ne dañ ko koy amal foofu ca Gandigal kër jëwriñ Baye Fall Ka na teew ndax sëriñ Fallou Mbacke docteur fu mu teew yiw moo fay yendu samedi le 1er avril a mbuur nag dana demaat kër Serigne Makhtar euh, Mbacke Mor ma jigéen mu ci ciy woo taalibe yëpp nag ñu daal di koy ñëw fekkee ndax dina am solo trop te mbuur lay am se Fallou Mbacke docteur yal na yàlla guddal faram may ko fan bu gudd ak yaram mbokk yi dañuy dem seeti Farba Senghor bi nga xam ne démb RFM la njëkk waxee la mu yàq Karim Wade weñ bu ci yem daa dee wow kongu dee Farba Senghor démb mel na ne ku musul xam Karim Wade ci àddunam ñu seeti Farba ba muy wax ak population Sénégal ak ay militants ca biir Sénégal ak lu ko wër ñu seeti Farba. ma ne ma ne Karim Wade du dara laa wax Karim Wade du tus Karim Wade dafa soxor dafa bon dafa iñaan ndax Karim Wade man ak Pape Samba Mboup tey lu mu doon yàlla ñun ñoo tax mu doon tey li mu doon papam bi ko jur sax gëmul woon ne Karim Wade mën naa liggéey am déet man Karim Wade maa toogoo moom ci ruq gëmuloo na ko ne ginnaaw sa papa yaa mën a taxawal li nga xam ne mooy parti démocratique sénégalais pour dignement waaye ndekete Karim Wade naxa naxa la bu toogee fii ci réew mi depuis 2009 gàcce gu ñu am Karim Wade moo ñu ko teg Karim Wade gàcce gu ñu am moo ñu ko teg xel bi dara nekk ci lu ay oto yu rafet ay oto yu rafet ay jeu PlayStation ay damier ak lido ay bolot waxtaan yooyu ñoo ko intéressé woon waaye Sénégal intéressé ko Karim Wade du ñeex du xooñ du dara topp whatsapp bi rek di envoyé ay message dama ne booy seet ku bon ku incapable ku mënul dara ku tële koo xam ne xel ba nëx jàppal na Karim la tudd sant Wade maa ko wax maa ko wax baayam su demee ba di ma dàq ah ah laal na la fu waruloon laal dama ne kii nga xam ne mooy sama dëkkandoo di sama xarit di Pape Samba Mboup bi ñu naan sikka mu ne sikka mu béy tooñ nañu tooñ nañu de Karim Wade koo xool ak ndelam bu xóot yaatu boo gisee nenu béy nee na nelan nenu béy béy du nen waaye boo gisee nenu béy xam ne moom la nenu béy doo ko gis waaye boo gisee nenu béy xam ne mooy Karim dama ne dama ne Ablaye Wade laal na laalaake mag Pape Samba Boub gisuñu lu tax ñuy dellu ginnaaw ci suñu engagement politique Karim Wade dañ ko rawale mu dem Dubaay di naan ay meewam ay tàndarmaam fàtte ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale man musuma boot Karim Wade waaw musuma boot Karim Wade Abdoulaye Wade respecté naa ko waaye musuma boot Karim Wade musuma koo boot ndax man góor laa dama ne dama bu dellusiwul xelam billaahi parti démocratique sénégalais ndaara la jël ci élection damane dama koo xam na sa xel ci li bu nekk mooy jouer jouer ay football ay babi dama ne nan ngay mën a tare Sénégal ma ne ñun ñi nga xam ne taxaw bañ tey démb lañ doon bañ baayam bu amee dara Dakaaru Njaay man maa tax man man man Farba Ngom Farba Senghor dama ne dama ne parti démocratique sénégalais dana doon ay pàcc pàcc pàccal pàcc pàcc xarati pàcc ba mu pàccu ndax ñun incha allah dañuy demal suñu bopp te xam nañ lu ñu man grand yoo Pape Samba Mbuub moo ko moom xaar yàlla Pape Samba Mbuub moo ko moom foyer grand yoo Pape Samba Mbuub mooko ko moom Arafat Pape Samba Mbuub moo ko moom Ruqu Jine Pape Samba Mbuub moo ko moom waaye diggante Dakar jàpp fi nga xam ne moom mooy biir Kléber ginaaw port ruq-ruqaan yi kooku kuñ naan Farba Senghor ko moom dama ne taximaan yi xam nañu Farba Senghor mooy kan transporteur yi xam nañ Farba Senghor mooy kan Karim Wade laa wax du dara du dara kuy Karim doomu Ablaye Wade loolu war naa tax nga bëgg nen ci kaw bopp nit dama ne Karim Wade na see même pas Sénégal y a combien de régions gëmuñu olofam day naqasaale xamul tous man maa leen ko wax Karim Wade xamul sax ni ñuy waxee yenn wax olof yi balaa mu koy wax dañu koy laaj ñu bindal ko ko ñaari weer mu koy soog a wax tey ma wax leen dëgg bi gëmuñu il ne croit même pas bu yaakaar na ñun ci Macky Sall nañ jëm mu ngi nax boppam ñun Macky Sall àdduna du neex bañ dem ci moom waaye bu ñu woowee ñëw. du ñu dem waaye ku ñu woo ñëw uh-huh. waaw woo bi nag waxuma dem fekk ko ci li mu bëgg waaye ku ñu woo ñu dem déglu la dama ne nit ku dul juum amul Ablaye Wade juum la doon nangu dafa juum lii du yoon du yoon Karim Wade du dara du tus xamul dara uh-huh. mënul dara uh-huh. amul dara dul xaalis bi ñu ko jiiñ te nag jar naa seet ah oui jar naa seet dëgg dafa jot waaw jar naa du ñu dem fekki Macky waaye ku ñu woo ñëw du ñu fekki waaye ku ñu woo ñu ñëw woo tax nga ñëw taxul nga ànd ak moom lu leer laa leen xamal Ablaye Wade bu waxee ne ñun waaw on est des gens yoo xam ne ah dañu nekk ci ginnaaw di xeex Karim dama ne mag mag day atte loo xam ne moo jara ate Karim Wade du dara dafa tële mënul xamul bàyyiwul lu yàqu moo moom ci la mënul bawul xamul lu yàqu moom ci la e bawul lu yàqu moom lu yàqu moom ci la Karim waaw waaw Karim waaw ah ni Karim ah waaw Karim xamul deful ni Karim xamul waaw ni Karim ah waay waaw xamul dara waaw waaye baadoloo boo xamoon Sénégal ci mu ba yegg si fii war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ci moy congantu bu diix nañu ca jàpp góor gi tali ñu naan mag la manul wax ju yàqu la mu ngi def lu ndaw li manul mag ni mag a bàyyi ci réewoo góor diix nañu ca jàpp góor diix nañu ca jàpp góor gi tali ñu dañ ko daan dinga naan góor gi nitu la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ak Casamance adduna bi yëpp di seede laay bu ngi jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix u fet waa fi am nañu mbégte ak contentement mag gàmmu Mbour tefes suñu baay alaaji sang Mouhamadou Gaye le 6 mai lay am gàmmu international boobu ca Mbour Tefes ñu koy profité nag di ko ziare di ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram suñu bàyyi alaaji sang Mouhamadou Gaye nekk ca Tefes ka le 6 mai lay am gàmmu international buñ ci yàlla bàyyi bañ egg ci la mu gën a jege-jege nag ñu gën a wax na programme bi nan lay tëree ndax suñu bàyyi jooju du def lu dul sant suñu borom di julli suñu borom di ñaanal bépp doomu aadama ngir yokkate ak jàngoro bañ koo dal ci bépp xeetu doomu aadama kon wax dëgg yàlla suñu bàyyi alaaji sang Mouhamadou Gueye dañ koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram le 6 mai la ca Mbour Tefesk troisième édition sant Serigne Touba fàttaliku Serigne Khadim Mbacké grand conférencier samedi le 8 avril lay am 2017 ca Thiaroye Azur ki koy def mooy Cheikh Assane Sine sama mag la ñoo bokk ndey baay di ko ñaanal fan bu gudd ak wér waaye di ziar tamit la xalif général Léona Niassène El Hadji waaye di gërëm tamit suñu papa alaaji imam Makhtar Dem nekk ca Jenge euh, dëkk boo xam ne mu nga ca commune de Taïba Ndiaye suñu papa imam la waaye du dem benn yoon jumaa ja te seetaanuñu ba pare xolam féex mu daal di am mbégte ñu ngi koy moom tamit fan bu a ak wér-gu-yaram waaye tamit le 8 avril incha allah moom mooy gàmmu siineen yi am ca Linguère gàmmu suñu baay alaaji Ahmadou Soxna Siin ki koy def nag di muad di muaddamu maam alaaji malik rabial taala anhu ki koy def mooy Serigne Jibril Sil xalif bu Medina Sine ca kër Moussa la dëkk imam ratib la foofu ak ànd ak ay doom baayam ñoom sëñ Moussa Sine oustaz Mortala sin imam Adama Sine ca Linguère Pape Mar Sine ñu ngi ko ciy woo ak oustaz Abdou Sine Mouhadam la président sopp daayira Serigne Jibril Sine ñoom ñëpp ña nga ca ji ñu leen xamal nag le 8 lay doon yaa l'islam nit ku yàlla baaxal la ma ngay def liggéey bu am solo ci biir mi ak lu wër journée culturelle sama maam di euh, journée culturelle religieuse maam Serigne euh, Abdoul Khafor Mbacke ibn Maam Mor Diarra sama maam direct la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér général des Mourides ak Serigne Abdoulaye Mbacke yàllay buur xalif de Mamor Jaaram borom saam ñooy euh, ñoo joxe ndigal googu nga xam ne nag moom mooy am euh, ca mosquée Massalikul Jinaan di samedi le 8 avril 2017 à la grande mosquée Massalikul Jinaan Serigne Abdou Khafor Mbacké moom ci boppam nag bés boobu nag bés bu am solo la ñuy wax nag mbokk yi samedi vendredi le programme bi di commencé forum préparatoire à l'université Cheikh Anta Diop ca samedi ba nag moom mooy grande journée culturelle et religieuse de Serigne Abdou Khafor Mbacké bés la boo xam ne nag le 8 avril bu ko kenn wuutu ndax bés bu am solo la waaye nag di dellu fàttali la suñu mbokku taalibe yi ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Fallou Mbacké docteur vendredi le 31 danañ ko nganalee foofu nga xam ne ne nag mooy Gandigal kër jëwriñ Baye Fall ku fa teew nag di nga non seulement da nga ci am ay xéwal waaye nag ñaan bu ñu fa ñaan yëpp da nga ko bokk mbokku taalibe yi samedi le premier euh, le premier avril nag mu daal di xëy dem Mbour kër Serigne Maktar Mbacke Mor ma jigéen ñu ci woo bopp taalibe ñu daal koy teew di am mbégte contentement ci Moustapha Sène moom tamit jëwriñ la yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram Fat Bintu di chéri Ngalande Diouf ak Aïda Dione Tassoir ñoom Fatou Boro nekk ca Bordeaux Aïda Mbène waa Bordeaux ak waa Paris fan su Kouthia yëpp ñu ngi leen di nuyu de passage di leen ñaanal fan bu gudd wér gu yaram laay la jalonneur de ENSUP ñu ngi koy nuyu depuis yëmbal waa gang fu 39 45 mbay 12 17 champion petit ba booy booy Diop ak jànqalaar maalaw seras ñu ngi koy nuyu may sa sant yàlla boutique waatu waa Touba comme xaritu Kouthia oratio bio euh, naturel Serigne Cheikh Omar Diop ak Cheikh Tidiane nuyu nañ leen mbokk yi nag dañuy ànd ak Karim Wade mu daa dee tontu ay tontu yu saf waaye tontu yooyu nag moo ngi koy tontu ki nga xam ne moom mooy Farba Senghor mi yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ci daram style parfum la boo xam ne dafa ànd ak allure black énergie glamour spicy ñoo leen may seen émission Kouthia Show tomaté loqoti soxna si sap sap neex ba pare yomb teel a xonk madaar na ko man maay raxas kër gi daa dee setal kër gi bàyyi fa xet am na omo am na liquide mbokk yi ñoo leen may seen émission Kouthia Show ñu seeti Karim Wade ay tontu yu muy yëkkati teg ko ci deru Farba Senghor Karim Wade ca biir ca Versailles kër papam ak ay militants ñu seeti Karim. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf tey ma tiiñal ko ku ne tiiñal wax na waxu olof bu xóot parce que nii ne man dégguma olof waa ku wax tiiñal kay olef wàcc na le Farba Senghor lu mu am tey yàlla ak man la ak sama waajur bu góor ak bu jigéen Farba Senghor bu déggee monsieur le ministre ginnaaw yàlla ak yonent bi man la ak sama papa Farba Senghor moo nekkoon Baye Fallou Karim Wade yéen ñëpp xam ngeen ko man nag mi muy jiiñ naan dama topp whatsapp bi di communiquer mu ngi may tooñ mu ngi may tooñ ba ci kanamu yàlla moom moo ne man dégguma olof lu ma wax dañ ma ko bindeel waa li may wax nii ana fu ma koy liixee dama ne sakate sakate baaxo mbay dëkkate dëkkate baaxo mbay dama ne nit du wax du lu def li muy nëbb la yaa ngi may dégg kon man xam naa bu baax ki ma doon xam li ma doon xam li ma man ak li ma tëlee sama papa nek du nekk di dund koy xeex lu ñu def am na lu ko waral lu ñu wax am na lu ko tax dama ne gërëm nit du wàññi doomu aadama ba Farba Senghor lii ko sama papa defal ak man lu ma xas-xas ne man dama tële dama bon dama soxo mu waxal ma sama benn bu baax moo gën mu génne ma sama fukki yu ndax su ma amee fukki yu bon am benn bu baax benn bu baax mun naa wecci fukki yu ndax bu fekkee ni da ngay naan di tooñ di saaga di wax lu ñaaw di jëw di xambaaj te lu baax bu ñëwee nga dem ci ba jeex tàkk mun na ko wecci ndax ku fekk koo xam ne añul reerul amul fu mu tëdd amul lu mu jox njabootam nga jox ko mu añ mu reer nga sang ko dimbali ko mu am kër dimbali njabootam yóbbu ko Makka teral ko dama ne benn jëf bu baax boobu weccoo na ay fukki bon dëgg la war a du dëgg moo tax ma ne nit ki boo ko xamul bul ko wax eh da ngay jaax ci turam mu tontu la parce que eh ñun ñëpp ñoo koy wuyoo nekkal ci mbedd ne eh ñëpp geesu eh Njaay dafa am war a eh Jóob eh Caam eh, Juuf eh ñëpp koy wuyoo waaye boo bëggee ki geesu la ci fula ci fayda na ko eh Karim mu ne Wade Diack ku ma xamul tooñ waaye ku ànd ak sa géwal sa géwale juddu xam say maam xam yaay kenn kenn du la tuutil ci àdduna man Karim Wade kenn du ma tuutil kenn du ma tuutil. yow Fara Wade Ndiak Diallo Wade Ndiak yokku ci songum xeer. waaw. yow ku la xamul. waaw ku na waaw yow no stress ci ngay waaw ci juddu ci mbaax ci melokaan ci xam lu kon yow ni nga mel bu sens la mel. dama ni. Eh? dama ni. Eh? bay aale bi nekk ndax mooy sama géwalu judd bay kii doomam la caamas ah. soo ma fekkee fii tagg ma yaa ngi wane ne man gàcce kenn mënu ma ko gàcceel parce que fax ba sengoor bu demee ne man dama télé mënu ma xaw ma dara sama géwalu bay dem tagg ma ko suma jël wàcc na dama ni waaw li nga def naka dag ji def ko Sinthiou Jalamere def ko Saara Yaba def ko xarit na def ko Sénégal wun nga gëm kon Faara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak yokk ma ci seen. albume Ndiaye. Eh. dama ne ma dolli la. Eh. Alboury moo bëtt waa Jolof di ci naan. Karim moo xottu tineel oto yi di ci jaar. Alboury Ndiaye moo bëtt teen. waa Jolof di ci naan. Karim moo xottu tineel eh. oto yi di ci jaar. dama sama géwal la waaye xam naa ne man ku ne dégguma olof tey dégg nga loo musul dégg. du ñu stressé loo bëgg ma fekke ci la. yow no stress. ayca no stress. dañu koy riij ba mu saf saf. ba mu saf saf. ayca musique. ana musique ba. anamu. nii rek ana militant yi. oui oui waaw. nga ne. oui yaay. nga ne. Thiamas. oui. oui yaay. gëm leen. Ah. dina gën a baax. ayca ayca leen. kooku. bu leen kenn merloo. ay ca wala ay ca mari waaw ay ca benn benn leen ko benn benn leen ko benn benn leen ko muña mañe mañe mañe wiye yuy baba ay ca kene ñëwe wiye wiye bul ko coos wiye eh, wiye bul ko coos boo xamoon Sénégal eh, mu jaay ak si fii tey mu tax a seetu ay ca way mu daax a seeti way ñëwal doy na waaw waaw ah ay ca way très bien ay ca demen Samba bu kenn stressé Farba Senghor am na lu la naqari tey sama géwél waaw way waay ay waay oui oui sema oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay oui yaay wii i waay dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj dagaj waa dagaj bu yaay ñii we lu daw li mënul we waaw i waay bu yee yuy bu dara siis i waay doy na góor gi dal yi ñëw ko daan di nga naan góor gi nitu ay la laaj. ko jox bu ko jox na ñu na de na de na de. na na de eh, na de na de. na na de. Barba Senghor gis nga lu mu gis ko ayca ñëwal oui mu yeeyoon ah. xale yi bu màggee ëllëg raw seen maam. na nañu na nañu na nañu na nañu na nañu na nañu muy yaay. muy yaay. éducation nationale.